tudd Mohamed Abdoulaye Guèye président du mouvement CIRES synergie pour la renaissance citoyenne et l'entraide. waaw léegi si waa CIRES dafa am lu ñuy dënnu ci weekend la mën nga ñu si dellusiwaat. waaw euh, euh, dañu ci phase de lancement de cette plateforme qui a été lancée weekend week-end weekend de la jeunesse mu nekk vraiment 48 heures d'activité activité yoo euh, permettre au mouvement CIRES euh, mu décliner sa feuille de route expliquer sa mission à la population kaolokoise. parce que comme vous le savez il y a beaucoup de mouvements il y a beaucoup de structures à Kaolack au Sénégal mais il manque vraiment des structures qui xam ne dañuy accompagner véritablement jeunes yi ci li nga xam ne sens à leur vie mooy formation ak emploi ak entrepreneuriat donc nous en tant que des jeunes acteurs conscients c'est vraiment attentes à ce que les jeunes yi par rapport aux politiques publiques nous sommes dit vraiment dañuy créer synergie pour xam ne day accompagner jeunes qui ci lépp loo xam ci la formation ci entrepreneuriat ak li nga xamante ni donc quête d'opportunités. Euh, huit quarante heures bi euh, samedi 16 ak dimanche Dité, juillet amal fi ci Kaolack. programme sax ci diagnostic bi ngeen def ba plateforme waaw diagnostic bi euh, diagnostic agitation bi nga xam jeunesse bi rek di nga xam que jeunesse bi dañu am question question dañu koy poser réponse bi manifestation yi soo amee jeunes yi du def aussi vraiment bi ni en vogue nga ay doomu. ay doomu Sénégal yoo xam ne situation jaral na leen ñu jël ay vol dem wàcc Nicaragua di franchir vraiment lépp luy obstacle di affronter la mort pour mën a dugg États-Unis nga gis ñoo xam ne sax parfois ci yoonu suuf bi la ñuy jaar nga gis doomu Sénégal yi fi ne nii lu ne ñu ngi koy def. di def sax loo xam ne seen bakkan da ciy xaj malgré mort yi ñu ciy déclaré ak disparition yi loolu di leen mel ni da leen di gën a encouragé si lañ xam ne wax dëgg yàlla nag y a un problème te problème bi am lenn kese la wax dëgg yàlla lenn kese la mooy problème mu nekk ci sa dëkk sentir ci sentir ni yow sa dëkk bu lay jàppale sentir ne aussi mën nga tekk ci sa dëkk subvenir ci say besoins primaires yëpp Nous euh, gis tam ni état bi même mais information bi jotul pour mën a jot ci opportunité mission mooy fexe ba jeune information mais aussi lépp loo xam programme d'accompagnement la bu am mobiliser donc fexe ba yi xam ne ay structures yu fi nekk di comme ça nous leen renforcer espoir yokk leen ñu muñ yokk leen aussi ñu approche structure yooyu pour xool lan la structure yi mën a def pour ñoom parce que am na ñu ciy jaar di taxawal ay projet di am ay formation yoo xam ne di permettre ñu ay insertion am ay emploi yu décent am ay revenus yu suffisant di subvenir seen besoin et aux besoins de leur famille. mais est-ce que euh, structure yi am est-ce que facteur bloquant pour jeunesse bi xam ne est-ce que seulement c'est le manque d'information. waaw facteur bloquant bi bi nga xam ne ci décisif c'est le manque d'information am na yeneen facteur bloquant mais bi nga xam peut-être moom moo détrôné yeneen facteurs yépp euh, le manque d'information parce que tey. xam nga su fekkee ni xam nga ni fii añ añ dina fi am da nga toog xaar ko cest à même boo postuler si demande di nga mën a patienter mais li nga xam ne moom moo déterminant nekk lu remarquable mooy ngay jaaxle amoo fenn foo yaakaar ndimbal xam nga soo amee foo yaakaar ndimbal rek di nga toog xaar ko wala nga dem fa ñun li ñu bëgg mooy jeunes yi buñ jaaxlee ñu xam fan lañ jëm buñ fa fekkee baxna buñ fa ñu au moins amna fuñu jëm fa mais li nga xamné ne lañuy la ba éradiquer ko wala ñu ko jeune bu jaxlé té xamu fu jëm té li nga xamné ne lañuy sétlu ci dëkk bi actuellement ni mu nekk un phénomène moy nous yi dañuy jaxlé té duñ xam fan nous jëm duñ xam kan la nous duñ xam kan mo war accompagner. Euh, plateforme de contribution la ci côté état pour état mën a fi mu du plateforme de contribution ci côté état kessé mais c'est une plateforme d'initiative aussi parce que il y a des jeunes cadres il y a des jeunes prof ingénieurs ay jeunes professionnels yo xamné aussi am nañ ay compétences am xam-xam yo xamné dañuy japp ci tagat ndaw ñi duñu xaar état tagat kessé mais ñun suñ bop aussi nous avons des formateurs nous avons des experts yo xamné ñom aussi on les met en œuvre on les déploie pour que ñu former jeunes yi sensibiliser leen accompagner leen ci ay processus Nous aussi pour notre propre compte on organisera Inch'Allah, des activités pour nous appeler pour jeunes pour nous dégager ay projet pour nous formaliser pour nous aussi pour accompagner pour nous mener des opportunités. mais est-ce que la situation sociale est, à votre faveur du fait que vous obligez les jeunes à ñàkk mën a faire sax bay def exode. waaw xam euh, jeunes yi peut-être dépaysé ou moins, waral mais nous aussi nous nañu bay suñu waar te tamit l'information commence à passer vraiment appel d'offres ñu nekk di par rapport aux services par rapport aux activités yi nga xam ne ñu à l'endroit de la jeunesse il y a des manifestations d'intérêt Des manifestations d'intérêt yooyu àgg na par exemple au niveau local jàpp nañu loolu non kat su fekkee ni am na résultat dans la première phase jeunes yi incha allahu rabi danañ des exemples potentiels réalisation donc danañu gën a am espoir pour mën approcher la structure ça promet parce que am na ay jeunes yoo xam ne au moins yëg nañ ko te manifesté wu nañ te incha allahu rabi danañ nekk ay bénéficiaires danañ bénéficier aussi lépp loo xam ne peut-être ay offre la par rapport à la structure et bu loolu amee incha allah on ose espérer que ni yeneen jeunes yi danañ sensibiliser aussi le mouvement n'a pas de limite c'est un mouvement international. Donc tous ceux qui sont des acteurs, ils soucieux de devenir de la jeunesse, ces acteurs-là sont les bienvenus. Tous les partenaires qui évoluent dans ce qu'on appelle accompagnement, formation formalisation financement et insertion des jeunes sur nos partenaires pour l'instant donc le forum que nous avons organisé Inchallah ce forum veille à la participation de tous les instruments D'accompagnement des jeunes dr 3FPT donc ANPEJ donc FONGIP la chambre de commerce donc euh, on a convié la mairie le conseil départemental on a convié aussi le centre de formation donc CFP de Kaulak. nous avons convié aussi l'unité mobile de formation du lycée technique El Abdoulaye et toutes ces structures-là, le PF2E, donc l'ADPME, le programme, euh, le mission locale pour l'entrepreneuriat des jeunes, toutes ces structures-là danañ ñëw inshallah forum bi te lépp lu ñu am comme opportunité bu jeunes yi phase d'étude quelle a été l'implication de la population. waaw si phase d'étude bi l'implication de la population niveau par exemple lorsque l'initiative a été lancée donc on a partagé des formulaires on a partagé des formulaires donc pour mani appel à manifestation d'intérêt donc beaucoup de personnes ont vu le formulaire et se sont inscrits nous nous sommes rendus compte que vraiment y a ces personnes là ont été intéressées par l'initiative parce que nous avons eu plus de 500 manifestations d'intérêt. Et toutes ces parties prenantes, donc il y avait des demandeurs, mais aussi il y avait des acteurs qui sont prêts à se déployer donc pour contribuer donc, pas donc dans l'initiative. Et aussi après ça, il y a différents acteurs qui sont dans différents secteurs qui manifestent aussi vraiment leur intérêt par intérêt a presque la regroupe toutes les couches donc tous les secteurs de Kaolack même la chambre des métiers la chambre de commerce donc le conseil de la jeunesse toutes les structures même les privés ont été conviés donc je pense que le niveau d'implication atteindre na summum bi nga xam ne moom la waroon atteindre. léegi événement bi kañ lay commencé. à partir de 9h. le contenu le matin day nekk forum de l' forum boo xamante ni structures yi ma la tuddal yëpp ñoo fay dajaloo incha allah ñëw ak seen ay information ñëw ak seen de service jeunes yi fay ñëw ñëw xam réellement lan la ñu bëgg structures yi. informer leen accompagner leen ba pare enrôler leen ci li nga xam ne mooy seen ay plateforme bu appel d'offre amee ñu informer leen su seen chance nekkee ñu mën koo jël donc la soirée soirée dina am ben nuit culturelle animé animation donc Saloum Show bo xamné ça verra la participation des acteurs culturels donc locaux ak aussi ay invités yo xamné ne ñu ngi depuis Dakar maintenant le dimanche dinañ def une cérémonie officielle def ben panel un xamné on va parler sur quelle jeunesse face aux défis du développement et de la mondialisation ndaw ñi euh, tamit ginnaaw seen yité ci li nga xamné moy am luñu japp jàpp am liggéey am nañu aussi responsabilité bu rëy ci dëkk bi nan lañ ci war a doxee pour mu suqaliko bu dëkk bi suqalikoo tamit réew yëpp xam nañ ni kenn ku nekk yaa ngi imposé wu ci leadership di imposer wu ci ressources di imposer wu ci culture di imposer wu ci civilisation loolu noonu nag jeunes yi dañ ci am taxawaay ndax ñoo njëkk loolu noonu lañ nar a waxtaanee incha allahu rabbi ci ci ci cérémonie officielle boobu bu soobee yàlla. léegi bu ngeen jógee ci loolu lan mooy nekk perspective yi. waaw perspective yi mooy vraiment suivre jeunes yi nga xam ne enrôlé nañ leen non seulement ci forum bi lancé nañ un appel à candidature pour des formations donc en maraîchage en informatique bureautique donc en pâtisserie ak en froid climatisation formation boobu la ñuy dérouler la formation on lance un projet de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes filles Bo paré de lañuy ñuy lañuy lancer est ce que vous pouvez impliquer les associations communautaires de base déjà existantes les associations communautaires de base Impliquent le maximum les présidents d'associations les présidents d'ONG les présidents de structures Envoyent envoyé nañ leen message envoyé leen ay invitation expliquer le projet impliquer aussi ces 48 heures mais au moment où ñuy wax est ce que am a un document de référence boo xam déjà benn représentant est à ngi ko téye wala yéen produire de pareil. waaw document de référence bi nga xam ne produire pour l'instant instant la présentation de la structure sa mission et ses perspectives le projet bi nga xam lancer pour la formation des jeunes produire nañ le document de référence la le projet pour la promotion de l'entrepreneuriat de des jeunes vie le document de référence est déjà conçu et Inch'Allah, on va le partager le jour de la cérémonie officielle. Non, les structures d'État, par rapport à l'activité, on les a envoyé les termes de référence qui contiennent les documents de référence par rapport à ce qu'on veut faire waaw sama dernier mot mooy di tous les jeunes de Kaolack ce week-end de la jeunesse donc je ñu remercier vraiment tous les membres yi nga xamante ni ñoo nekk euh, dans la structure boo mais di remercier vraiment tous les membres du mouvement CIRES en commençant par le euh, le vice-président le secrétaire général les comités d'organisation et du secrétariat di gërëm di aussi donc tous les experts tous les acteurs et les cadres yi nga pare nañu pour accompagner CIRES si li nga xamné moy 48 heures de la jeunesse bi pour que mu réussir di inviter jeune yépp di leen wax ni leen activité bi pour ñun la la majeure partie ñi nga xamante ni ñu ko organiser wala ñu bokk amatu ñu dara lu ñuy prouver pour vraiment. gis seen yoon si wàllu entre emploi wala si wàllu insertion mais dañu gis opportunité yi xam ne dana amal njëriñ jeunes yi moom moo tax ñu organiser li ni mel. merci merci beaucoup.